rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanal bismillahi rahmaani rahim kon ñu ñëw ci sunu bind tey ci téere Matnul Hashimawiyya ñu ngi jeexaloon buntub sangu farataag ya ci aju woon kon tey dañuy ñëw ci buntub tiim euh, tiim nag moom yi koy waral bari na euh, léeg-léeg euh, maanaam wér ji ko waral wala jort ak wér ji waral wala dolli ko wér ji ci boo jëfandikoo ndox dana ko waral ñàkkum ndox dana ko waral Euh, mu ak ja itam am na beneen bu koy waral mooy jàpp na ndox mi boo ko fi jëfandikoo waxtu wi génn itam dana ko waral mu ngoog moom nag ñëw na ci alquran ñëw na ci sunna borom xam-xam yëpp itam nañ ci mu ngoog baabu tayammumi lii moo di tiim bunt bi tiim la fi bëgg a jàngale wax mu ne wali tayammumi ñeel na tiim faraidu ay farata wa sunanun a ay sunna wa fadailu ak nganeel ti moom am na ay farata ami sunna ami nganeel farata waxoon na mooy lan ak ko sunna mooy nganeel itam mooy lan waxoon nañu ko ci bunt yi ko yi ko jiitu mënees na ko nafaraat fa amma faraiduhu ndaal ay farataam fa arbaatun yent la nee na farata itam yent la moom ni mu limee nag daa mel ne ñeent la waaye mel na kon da koo xaaj ndax am nañu lim juróom-ñett ba yaakaar naa ci tasawuru sixaar jàngoon nga ne juróom-ñett la waaw ne woon amma faraidu tayamumi fa xaa awaluha awaluha niyatu fi ma shuriha yaakaar naa waxin mu mel noonu bi ci njëkk an niyatu mooy yéene waxya moom nag an wi wiya mooy mu yéene istibaaxata solaati sax ko dagan lu julli li anna teemuma ngir naka tiim laa yarfau du yëkkati alxadasa toj ma alal mashhuri la ñu siiwee bu ci njëkk ci farata yi day yéene nee na yéene ji nag moom bu dee fii ci tiim nag nee na day fas rek ci xolam ne fas na yéene sàkk ko dagan lu julli ndax nee tiim kat mënut a dindi am toj dëgg-dëgg tiim mënu ko dindi waaye rek comme pexe amut tey day wuut rek day wuutu ndox rek soit da nga rek ne fas nga yéene. sàkk ko dagan loo def loolee sàkk ko dagan loo eh, mu nga julli mu nga ko wa taamimu wajhihi ak matale matal xar kanamam ba wa yadayhi ak yaari loxoom ya ila kuwayhi ba ci tiku jara ba tiku jara nag daanaka dañ koy jëfandikoo lu bare bare rek far ko continuer waaye njara daanaka niwaana ba bëriwut ñu koy takk na waaye takk montor mën wax mares naa wax takk bracelet fi ñuy takk bracelet wala ay montre ak yu mel noonu foofu mooy takku jara ay njara bu njëkk wa darbatu ak doorin ba al ula bay aji wa saidu ak pàkk ba at tahiru bay aji làpp waxoo moom pàkk bu laab nag boo xamut kulluma mooy lépp loo xam ne saada kawe na ala ardi ca kaw suuf wala feeñ na ala ardi ca kaw suuf min suuf aw wala beeñ aw xijaarat wala doj aw sabaxatin wala suufas xorom aw naxwi dalika wala yu niroog loolu mhm. daf ne bi njëkk ci farata mooy yéene wax na wax naa ko léegi ñaaram ne mooy bu yéene ba noppi nag mu masaa xar kanam ba mu daj kàpp boole ci nag masaawaale itam ñaari loxoom ba ci fa muy takk montar ba mu daj kàpp moom ñaari yooyu la boole jàpp ko benn farata kon ñaar yooyu boo leen boolee jàpp ko benn mooy doon ñaareel farata ci ñeent yi mi lim bi ne mooy dóorin bu njëkk ba ngay dóor sa loxo taggi dóor gi teg la ci jublu teg gi teg sa ci suuf rek ca la ngay tiime ne ko ca tegg teg googu la wax ne farata la mu ñett ñeenteel bi mooy pàkk bu laab pàkk bu laab na jubluwu ci ab pàkk bu tege ne laab déedéet pàkk bu laab mooy lépp loo xam ne charia dafa yoonal ne mënees na caa tiime loolu mooy pàkk bu laab moo tax da koo firi sax moo tax mu ne loo xam ne day feeñ ci kaw suuf moo xam ne na suuf kese la mooy suuf si nga xam wala muy beeñ wala muy ay doj doj doj nag mën naa nekk doju doju dënd doju dënd bokk mën naa nekk itam doju carrière mën naa nekk xor ak yu mel noonu naka noonu itam xorom itam mënees na jaa tiime waaye kañ lañ cee mën a tiime xorom su dee da nga koo fekk fa mu nekk fa ka sunu borom subhaanahu wa taala def wala xeeti maanaam mbell bu ci nekk rek fa ko sunu def bu dee loxol dama doon soppeeku ko foofu nga ko fekk su boobaa mën nga caa tiime waaye saa yu ko xasee ba commencé di ko maanaam yaxantoo nag di ko jaay ak jëndante su a tiime kon buñ la waxee xorom mën la nga dem ci bitig ba jënd xorom ñëw teg ko sa kër di ci tiime déedéet ndax xorom soosu dañ koy yaxantoo su boobaa day génn ci day génn ci xaala boobu waaye xorom suñu wax mooy xorom su naturel nga fekk ko fa nekk tiime ci mu ngoog ñu kon ñeenteel bi ci farata ci farata yi mooy maam tiime ci lu laab tiime ci lu laab nag ma ne mën nga ko defee suuf te nee suuf moo ci gën suuf moo ci gën waaye nga bàyyi xel bu dee da ngay tiime ci suuf nag suuf soo xam ne na mën naa jaxasoo ki bant ak yu mel noonu la gën mooy soo tegee sa loxo ci suuf sa bala nga ko yëkkati di ko yóbbu ci sa kanam gi mbaa ci say loxo nga fëggalee loxo yi fëggale gi nag jubluwuñ ci ngir suuf si ci taq dañ ngir ne danga ngaa rëyee masa suuf sa kanam déedéet waaye ngir bant yi ci taq wala xëyti yuy gaañ rek bu ca nekkee su ko defee mu daal di wadd su ko defee soo masaa sa kanam du la gaañ ndax diine daray mettit nekku ci dégg nga wala beeñ itam mën nga caa tiime wala doji dënn mën nga caa tiime wala doji carrière ni ma ko waxoon léegi walla xorom mën nga jàll wala mool ban waaye bépp mool boo xam ne ciment lañ ko defaree suba mënatoo caa tiime ndax ciment nekkul lu naturel ndax loxol dama adama soppi na ko ndax dugga leen ko ci jaar ci fabrication ba loxol dama adama Euh, am na composition chimique ba loxol doomu aadama soppeeku kon su boobaa mënatoo caa tiim waaye la nga mën a tiim day nekk lu naturel loo xam ne loxol doomu aadama soppeeku ko loxol doomu aadama soppeeku ko fi mu ne même doju dënn sax fi ne doju dënn su doon daa fell nga jël beneen xeetu doj boo xam ne doju simaal doj sax su boobaa mënatoo tiim ndax li nga ci def ko li nga ko motalee noonu li nga ko maanaam li nga ko li nga ko tabaxaatee maanaam ciment da du loo naturel. naka noonu itam ban buy rembi rembi ban buy rembi rembi mën nga caa tiime naka noonu itam xeeti glace mën nga caa tiime ak mool ban mool wax na ban lañ ko defaree nga xam ba léegi nag génnagut maanaam génnagut euh, maanaam euh, matière suuf su boobaa mën nga mën nga caa tiime muy ñeent yooyu mooy farata yi wa amma sunanu woon daal sunnaamee nag fa salaasatu ñett la te tartibul mas mooy toftale masaaga wal masu ak masaaga minal kuwaay tukkee ca Euh, tukkee ca tikku jara la mooy takka takkaay montor ga ilal mirfaqi ba ca conca la wa tajdiidu darbati ak yeesal wa tajdiidu darbati ak yeesal dóorin wa lil yadayni ñeel ñaari loxo ya su ne loxo na ñett la nee na bi ci njëkk mooy toftale masaa gi xam da laa waxoon ne la sa kanam ngay njëkk masaa teg ci masaa sa loxo ba ci tikku jara jàll continué ba ca conca loolu la waxoon kon li gën mooy nga jiital kanam waaye soo jékki-jékkoon masaa rek ba ci tikku jara jógee ca massa ba ca conca soog a ñëw massa kanam dara nekku ci su boobaa timba baax na ndax faratay man na waaye nag su boobaa sunna yi manqué na waaw kon daa bokk ci sunna nga defee ko nii ko yorante bi daan defee sallallahu alayhi wa sallam nga njëkk a massa sa kanam dégg nga soo noppee nag soo caa teg sa loxo waaw ah mu ngoog nga def ko noonu lool sunna la ñaareel ba la ne mooy maanaam bi ngay masaa sa xam nga liy farata rek mooy nga masaa sa loxo ba ci tegu jarax léegi nag tàmbalee ci tikku jara bi jàll ba ci concalax ñëwaat ba ci tikku ñëwaat ba ci catal baaraam yi loola tamit maanaam mënut a ñàkk waaye nag day sunna moom kon ne na ñaareel sunna yi mooy nga masaa sa loxo li tàmbalee ci tikku jara yi ba ca concal loolu day sunna bi ko ñetteel nee na mooy yeesal dóoriñ ba xam nga dóor teg gu njëkk nga njëkkoon teg sa loxo ca la ngay tiimee loolu mooy farata te loolu boo ko defee da ci masaa sa kanam léegi dañuy bañ nag nga masaa sa kanam ba noppi jàll masaa sa loxo rek ci benn tegin boobee dañu bëgg nga teg teginu ñaareel maanaam nga dóor sa loxo ci suuf ci la ngay tiime eh, dóoru ñaareel dóoru ñaareel boobu nag ngir massage sa loxo ba ci say teku jara jàll ba ci say bëti ba ci say la yeesal gi ko yeesaloon sunna la wa amma fadailuhu daal ay nganeelam fa thalaasatu ñett la aydan ba tey ngane nganeel tiim ñett la at tasmiyatu moo di wax bismillah bi ci njëkk mooy wax bismillah eh, mu ngoog wal badu ak tàmbale bi masi zahiral yumna ci masa bitib loxol ndeyjoor la bil yusra ca loxol càmmoñ la ilal mirfaqi ba ca conca la daf ne ñaareel ba ci nganee li mooy booy masa sa loxo nee na nga njëkk masa lii feeñ maanaam li njëkk masa biti loxo yi am loxo li nga xam ne mooy loxol li tàmbalee loxol li tàmbalee ci tekku jara ba ca conca la nee soo koy masa nga njëkk masa la ca biti ba noppi soo ko masa li biir loola la wax ne ngëneel la ngëneel la loolu nag soo koy def xam nga ne loxo càmmoñ nga koy defee ndax loxoom dajoor bi ngay def mënoo mënoo mënoo cee jëfandikoo loxoom dajoor bi nga xam ne moom nga moom nga war a massa même loxoom dajoor mënu ko mënu ko massa kon loxo càmmoñ nga koy def moo tax def ko ba ci concal loolu ngëneel la summa bil baatini topp ca biir ga topp topp biir ga ila axir al asaabi'i ba ca mujjug baaraam yi nee na soo masaa biti ba noppi nag soog biir ga daal di ñëw ak sa dawal sa loxo daal di masaa biir loxo bi di dem di dem ba sa loxol baaraamu day bi dugg ci diggante sa baaraamu day ak baaraamu sa dagaay bële daal di jàll ba catul baaraam yi loola itam la wax ne eh, noonu lañ koy defe muy ñaar mu muy muy muy muy ñaar mhm. Mhm. wa mason yusra ak masa maanaam loxol càmmoñ la la dalika kem na nga masaawe woon kem na nga masaawe woon loxol dajoor la wallaahu yàlla alam moo gën xam daf ne ñaareel bi mooy mu nga ah, ñaareel bi mooy nga tàmbalee masaa sa bitil nday bitil loxol ndeyjoor li soo paree teg ci biir ga soo paree def càmmoñ bi noonu eh, mu nga def noonu ndeyjoor bi mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy ni nga def ndeyjoor nga def ko càmmoñ bi kon ñetti nga ne yoon la am moom tiim moom la fa lim. Mm-hmm. Vincent taxawoon.